salaamaaleykum bonjour et bienvenue. Plaza def comme lu ñu defoon ak bijou ay <laughs> ca voilà ma ngoog chers téléspectateurs yéen a toujours ci seen émission elles sont toutes belles comme nañu koy defee à la coutumée dañuy ànd ak suñu partenaire leader seet si ñi nga xamante ne ñoom la ñu yendu si tey di suñu salon de coiffure tey nag ñu ngi ba usine benn tali seet si waa salon euh, top création chez Ndeye Ndaw sans plus tarder dama koy daal jox kàddu gi ginnaaw bi ma nuyoo ba pare nuyu leen daal di may wax tey Darline ban greffage la ko indil ak sa tur bel wala defal sama reine du jour war ko créer lu rafet incha allah comme nañu koy defee à chaque fois daax leen moo ñu fi jiitu indi ñu produit bi nga xamante ne moom la ñu utiliser tey pour nga def ci oh. a moom laa war a créer sama reine du jour mhm. uh-huh. nga bëgg nga naa ban création ma bëgg def création bu rafet rek tegal ko ko waaw dafa ko ay fantaisie dafa ko mu rafet daal mhm. waaw ndax teint noir tamit dafa neex a defar macha allah rez de côté nga koy defar rez oblique rez au milieu waaw rek rez de côté waaw mhm. damay defar rez de côté ba tubaabee rek mbal discret dafa baax mhm. waaw dama koy tegal lu rafet dafa tàng dama mhm. koy tegal benn rey de côté bu tubaab bu rafet day elle s'appelle tey moom mooy tey suñu coiffeuse tey daj fed nar créer li nga xamante ne moom mooy rey de côté nen def ci ay fantaisie defar ba mu baax bu ko defee suñu belle du jour gën a jongama macha allah donc dañuy def lu dul bàyyi ko rek mu def ay création bu ko defee ñu xool tey belle bi fan lay mujjee à tout de suite ayca mangoog chers téléspectateurs ñu daal di wéyal comme ni ñu ko waxee nag depuis le début ne leen ñi ngi fi nga xamante ne moom mooy usine benn tali fet woon waa salon top création chez Ndeye Ndaw madame Ka ba tax na nag mu daan ñu woon proposer li nga xamante ne moom mooy coiffure bu am maana àndoon ne moom mooy yakustrate defal na sama coiffure coiffure bu magnifique machallah loolu nag moom defe naan dama koy daal di jox kàddu gi ginnaaw bi ma ko nuyuwaatee ba pare mu daal di expliquer lan la coiffure suñu bi ko jox tey di yakustrate nay nuyuwaat naa la alhamdulilah en tout cas tey euh, danga ñu proposé woon li nga xamante ne moom mooy rez de côté. Mhm. te defal nga ñu rez de côté bu am maanaam c'est très joli. Mhm. Mhm. Uh-huh. na ne nga proposé ñu woon li nga xamante ne moom mooy rez de côté et tu nous as fait une belle coiffure. coiffure boo na sama belle lan nga ko ko coiffé ak ndax gisee greffage bi. waaw sama reine du jour maa ngi ko defal rez de côté oblique. Mhm. defal ko rez côté bu rafet. waaw mhm. ah, bu am maanaa comme dafa tàng. Mhm. ma defal ko ouverte defal ko make-up bu discret. comme dafa tàng. macha allah ba pare loo ci xamul yàq bi dafa neex a defar. day laal fer tamit. dafa neex a defar da ngay laal rek mu dem temps. Ah. gis naa ne aussi utiliser wu paquet bu bëri jëloo aussi temps bu bëri pour def sa greffage. benn paquet kese laa utiliser. Mhm. Mhm. dafa ko kase. waaw defal ko ko déjà bi mu paree dama ko simpot. Mhm. mu laal simpot laal fer. kon déjà greffage bi baax na. waaw daanaka daal amuñu seen fay ñun coiffeuse yombal nañu liggéey bi. waaw amuñu seen fay daal. kon ni ma la déggee ngay wax daal amoo benn jafe-jafe bi ngay teg greffage bi. amoo benn jafe-jafe. surtout fer bi sax. man bi ma ko simpotee rek dama kontaan. te yaakaar naa ne simpot greffage seen pic yombul. waaw ma simpot ko mu redd. liis. macha mhm. allah kon lan ngay wax mbokk téléspectateurs yi lay seetaan sa mbokku coiffeuse yi ak xale jigéen yi nga xamante ne bëgg nañu show. waaw sama sama mbokk coiffeuse dama leen wax ngeen dem wëri daal leen mhm. parce que jamono ji moom daal leen moom moo fi teg tànk mhm. yomb na defar waaw yéen daal coiffeuse maa ngi leen a wax ne wëri leen daal moo ko yor waaw macha allah ba tax na rek ah, euh, comme ni nga comme ni nga ko waxee léegi rek Darlene moom mooy tax ñu nekk star. te mm-hmm. tamit daf ñëw dafa ñëw indi yombalal leen yéen seen liggéey yéen mm-hmm. coiffeuse yi ndax léegi prêt à l'emploi la da ngay ñëw rek teg mu dem waaw yombal nañu ko moom. ba tax na mm-hmm. ba tax na ba tey yow yaa ngi ci Darlene ndax tey yow itam sa coiffure c'est très joli ban genre coiffure la. waaw gis nga afro di laa teg afro pink yëkkati sa paquet présenté ko ñu lay seetaan nii benn paquet laa teg nii. Mhm. waaw gis nga nii daarin daal amuñu seen fay. nii mhm. la ma def man. lii ban coiffure yow bi nga def. man daarin laa ko tuddee. Mhm. waaw. en tout rafet na te jàpp na la. Ah, c'est très joli. ba tax na mi ngi noonu chers téléspectateurs à chaque fois bu ñu tollee ci pàcc bi nag dañu nekk trois stars du ma di leen ko wax ndax dañuy proposer trois produits yu différents loolu nag Darlene moo ñu koy may à chaque fois ndax sama coiffeuse day génn ci coiffure Darlene moom itam bu am maanaa gis ngeen tey afro kinki la daal di génn génn ci moom ci coiffure bu rafet bu ko jàpp macha allah def ci benn waxee léegi rek day jël fer day jël brochine température bi dem na ba te léger na neex na defar te benn paquet rek aussi dalay doy pour sa bopp man aussi ma daal di génn ci li nga xamante moom mooy fashion hair fashion hair moom yàgg ngeen ko miin ngeen ko xam ngeen ko ndaxte à chaque fois dama leen di présenter différentes couleurs yi nga xamante am na ci tey ma daal di def couleur pink bi c'est très joli c'est très léger comme ni ñu ko wax il bi naka la ko dundee ak man en tout cas j'ai passé une belle journée. ah journée moom macha allah moom wax dëgg yàlla kontaan naa trop. Mhm. waaw mënuma leen a fay yéen waa Darlin. Mhm. mënuma la fay yow it disponible nga. mënuma fay tamit sama élèves yi ma nekkal. Mhm. wax dëgg yàlla bala may gërëm tamit. waaw damay njëkkee sama yaay lépp moom la tooba lëmbal maa ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana amiin sama papa amiin ndax lépp ñoom la ñoo taxoon may sonn di liggéey waaw bëggoon naa ñu fekk lii yëpp tey mais garaawul yàlla baax na mhm. di gërëm sama élèves yi ma nekkal mhm. waaw ñoom ñëpp boobu ba léegi ñu ngi jàpp mhm. ku lim juum bu ma limee damay juum ñoom ñëpp jàpp nañ ci liggéey boobu ba léegi sama femme ndaw su suba fajar la ñëw ci kër gi ne ci bomb bi di liggéey te ku iñaan du def loolu di gërëm ñi nga xam ne sama xarit yi waaw ñoom ñëpp sama yaay awato ba mu nekk ñun ba tey dawul waaw sama magi góor yi amet mataar waaw di leen gërëm li waral wax ji nag mooy museka monsieur Ka moom dama koy sant de passage parce que moom ba mu jàppee ba tey mi ngi ci liggéey bi ci Facebook di gërëm waa Femme Chic bu baax amit toob sama tante ah ak njabootam gépp sama yi di gërëm ñëpp aw ma kenn seen fay ñëpp laay gërëm dëkkandoo yi ma nekkal ñoo ma luyee sonaluñ ma ci dara may nañ ma jàmm ak salaam franchement. Mm-hmm. donc daal yaa ngi remercier ñëpp. donc ñun tam ñu ngi lay remercier bu baax en tout cas ñun suñu journée neexoon na lool macha allah waaye faaw nga wax li nga xamante ne moom mooy numéro téléphone bi ak adresse bi pour ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan bëgg suy baax yi. sama moom lépp la ñuy def. soin de visage. Mm-hmm. pédicure manucure. Mm-hmm. dañuy def traitement de cheveux. Mm-hmm. dañuy def teg dañuy def lépp salon bi daal lépp la sama complet la macha allah dañuy dem ay déplacement waaw sama numéro téléphone nag 663 la 06 97. 663 06 97 mi ngi nekk benn tali pharmacie Coppé en face chez salon bi nag Ndeye Ndaw coiffeuse ku ko bëgg a gis di nga ko gis ci YouTube bi sama page mu ngi tudd nday Ndaw Makeup. Mhm. waaw Facebook bi Ndeye Ndaw coiffeuse femme chic bi Ndeya Bouti. Mhm. waaw fu ngeen dugg rek di ngeen gis nday Ndaw li muy liggéey daal. ci réew mi maa ngi liggéey fépp. à la prochaine incha allah. à la prochaine kontaan naa trop. maa la gën a kontaan. Aïcha mi ngi noonu chers téléspectateurs Ndeye Ndaw elle s'appelle Madame Ka mm. gis ngeen tey li nga xamante ne loolu lañu defaral raie côté bu am maanaa c'est très joli et defe naa ne jàpp na sama belle du jour na defal na ko make-up bu toog te jàpp na ko loolu macha allah man itam gis ngeen daal yàq na ma defar na ma bu ma jonga ma macha kontaan naa bu baax ci moom donc pour euh, n'hésitez pas à venir ci li nga xamante ne moom mooy ci salon bi ndax numéro bi joxe na ko joxe na adresse bi lépp mi ngi ci biir bi tout ce mm. képp koo xamante ne rek bëgg nga jonga ma da ngay xamante ne moom mooy euh, top création chaîne lay naw madame Ka mu daal lay teral waaye nag bu ngeen di ñëw bu leen fàtte indi li nga xamante ne moom mooy seen greffage Darling naam bu ngeen ko indiwul di ngeen jongoma waaye pour nekk star mooy jafe ndax Darling c'est la coiffure des stars ba tax na dañuy wëyal terminé en beauté ak Binta Ebeno ñu daal di xool création bu ko defee su ma paree daal di togg sama belle du jour tëj joxe antenne bi foofu toj téléspectateurs ñu daal di wéyal terminé nag embouteillage waaye xam ngeen faaw ñu fi nga xamante ne moom mooy si plaza dugg nag ci boutique bi ànd ak ki nga xamante ne moom mooy la ravissante madame Thiour mu daal ñu présenté li nga xamante ne moom mooy les modèles du jour madame Thiour nuyu naa la. fay naa la bébé Chou. am contentement ak mbégte di leen dalalaat fii ci si Plaza Ebeno tey pour wan leen suñu modèle du jour yi bébé show. comme ni ñu koy defee à chaque fois saa bu ñu ñëwee rek modèle yi day gën a tendance couleur yi daal di gën a vive tey nag suñu belle du jour dafa génn ci noir moom elle de teint noir ba tey nag dañ ko solal noir en même temps. waaw bébé show boo xoolee sa presque ça fait presque mois bi dañu osé waat indiwaat soie. Mhm. parce que nit ñi dañu ko doon laajtee tout ñu wan leen leen soie mën nañ ci def lu ne. soit dañ koy perler soit dañ koy daamina tey donc boo gisee suñu belle show bi soit bu rafet lañ ko lañ ko ñawal ñawal ko ko tunique broderie ko donc euh, pour ñu wane nit ñi soit mën nañ ci def lu ne broderie baat bi ak loxo yi mhm. donc defal ko ko tunique bu rafet bu jot ba ci suuf pare nag teg ci strass parce que am na ñu la naan dañu bëgg strass am na ñoo xam ne bëgguñu strass dinañu xool la ñaari modèle yi sax wute na donc ñëwal ko tunique bu habillé mu jàpp ko ba bëgg a dee donc def ci broderie bu rafet donc tey lii lañ ñëwal suñu belle show bi tunique mhm. bu jot c'est bi jàpp na ko te tunique moom ku nekk xam ne dafa jàpp mag jàpp xale waa te tunique xam nga tunique li si chance bi mooy c'est-à-dire du wane sa yaram mhm. du du du wane sa sa kii waa sa classe mhm. day nëbb lu bëri donc euh, mag ñi dinañ ci gis seen bopp. Mhm. waaw te moom ak corpulence am macha allah ko jàpp. jàpp na ko parce que dafa jonga ma. Mhm. waaw macha allah macha allah c'est très joli en tout cas noir bi jàpp na ko. Uh-huh. te aussi comme ni nga que mhm. nit ñi euh, ci bazin rek la mën a dem alors mën na dem ci soie. donc tey moo tax ma répété si deux modèles yëpp boo xoolee. donc dañ ci insister ci broderie bi. kon yow soie man soie laa def bébé chou. Ah ñu bëri nañ naan ah soie la bébé ah chou. bii nag ci ébéno fii la am mhm. te bu la neexee nga jël musóor bi musóoroo ko am na bu am musóor am na bu amul musóor ñun ñoo koy jaay mhm. fii la am ci di donc boo xoolee man tamit robe droite laa def mhm. donc def broderie bi filage ci kaw def manche gonflante mu nekk rob bu rafet am fantaisie tamit ci gannaaw xorom bi mi ngi ci gannaaw donc euh, mu nekk robe droite bu rafet à la camerounaise moom laa def donc pour te dire rek na mooy li ma doon waxaat sànq broderie bi c'est possible ak ci soie. Mm-hmm. donc tissu bi moom bi nga sol nii yow sa soie euh, deux ans na la mën na nekk cuub comme mën na nekk soie parce que oh. nit ki ko gisee day foog ne cuub la. waaw euh, mm-hmm. boo ko ci utalee dina ko neex man ma utal ci mère Asou. waaw ayca kon ñu li nga xamante ne moom mooy baax baax yi nga xamante ne am na ci boutique bi dafa mel ni temps instant moom. boutique bi dafa gën a nekk en force. waaw dafa gën a nekk en force comme dama koy waxal rek Ebino ñëw na te bàyyi leen ko xel. donc ku bëgg ci modèle yi tey man ma sol ak belle du jour bi da ñëw fii ci si plaza Ebino au rez-de-chaussée war nga dem Scat Urbam ci gannaaw miiru foire bi suñu numéro téléphone di 77 918 49 53 ou bien 77 544 92 92 ñu ngi leen di xaar. Aïcha merci beaucoup madame Diouf à la semaine prochaine inchallah merci beaucoup bébé chou à la semaine prochaine. Aïcha ma ngoog chers téléspectateurs kon dikk leen am ci baax baax yi bu ko defee ngeen daal di kontaan seen amour yi daal di kontaan ndax ku sañse rek sa amour day daal di kontaan ñun dañuy wéyal terminal beauté avec la belle du jour à tout de suite. plus raide am nga sa cheveux raide ba pare am na longueur te day jël fer day jël brochine température ba dem ba 180 degrés bu la neexee tey jii boo ñibbee sa kër nga def ay cheveux bouclés. Mm. c'est-à-dire comme ni mu redde ni nga dem def ko mu bouclé parce mm. que day jël fer kontaan nga si Darlene. kontaan naa si Darlene kon li ñuy wax naan Darlene c'est la coiffure des stars yow tu affirmes. oui Darlene moom c'est la coiffure des stars. ah ben super kon nag alhamdulilah waaye euh, Binta Ebeno daal di lay génne ci tunique bu rafet comme ni ko madame Thioune waxee tout à l'heure euh, noo gisee sa tenue c'est joli ah. c'est joli Binta moom franchement fi ma génnee nii tey moom dama kontaan. Mhm. ndax def na ma grande dame. bah oui surtout. am na classe. et puis. rien à dire en tout cas. Mhm. bijouterie Serigne Babacar Sy or la la takkal or du ay caaxaan. Mhm. seen or rafet na baax na ma ko takkee xool na jàpp na ma rafet na. ah mais super. rien à dire daal franchement macha allah. alhamdulilah Latifa à chaque fois bu ma toogee sama belle ak sama belle du jour balaa may quitté ba di ron antenne bi damay waxtaan ak moom benn sujet boo xamante ne moom moo koy soulever tey bu ma laa bu ma laajte woon nga bëgg ñu waxtaan loo may wax. violation faite aux enfants. aux enfants. Mhm. lan moo la ci metti franchement jamono mii ñu toll nii euh, je peut dire que violation bi dafa bëri surtout sa xale yu ndaw yi mineurs yi. Mhm. des fois nga gis euh, ñu ne la euh, violé nañ benn min xale bi deux ans trois ans loolu daf muy touché daf may métti. imagine toi mu nekkoon tey sa doom lañ ko def. Mhm. yow nag affaire bi naka la lay def. Mm. nga ñëw tiim doomu jàmbur def ko ko. Mm. imagine la rek ñu defoon ko sa doom. Mm. comment ci vas te sentir. c'est ça kon euh, yow euh, li nga xamante ne moom nga wax ci su ma la déggee bu baax ci li nga bëgg a wax mooy xale yi nga xamante ne euh, un an deux ans dégg nañ ko fi cinq ans jàpp ba dix ans ñi nga xamante ne ñu leen di jàpp di leen def ay ñaawteef moo la metti mais pour yow lan mooy faute bi enfin la faute kii d'une part si parents yi euh, d'autre part peut-être si gars yi koy def nga xam ne ñoom seen xel je sais pas comment dañu feebar daal genre ils sont malades ouais. Mhm. donc est-ce que xam nga yaakaar nga ne am na solution parce que c'est pas la première fois à chaque fois ça se répète ci fait divers chaque jour nga dégg viol nañu xale un an xale deux ans xale cinq ans xale quatre ans lan mooy solution bi on en a marre ah oui c'est ça solution bi xanaa nguur gi jóg si rek taxaw si ba peut-être nguur gi bu si jógee taxaw si def si lim ci mën xëy na dina xaw a wàññeeku ndax bon je pense pas que ñu mën a ñiy def ñiy def ñaawteef boobu mën koo bàyyi mais tamit buñ si jógee jàpp si xëy na dina xaw a wàññeeku. Mm-hmm. oui donc euh, defe naa ne ah en tout cas xel du doy. te defe naa ne loolu moom c'est pas la première fois sax ñuy toog ci télé bi di ko wax débattre nañ ci émission nañ ci wax nañ ci waxaat yi mais teewul à chaque fois ça se répète mais xanaa dañuy ñaan yàlla. mu sàmmal ñu suñu njaboot. yàlla sàmmal ñu boppam. te musal ñu ci nit ñi nga xamante ne comme ni ñu ko waxee. man je peux dire que ne amuñu xel parce que nit buy dem bay violer xale boo xamante ne euh, xamagul ah xamagul B deux ans mënagul sax wax kooku euh, tu es nañ ñu jàppale bu baax comme ni ko waxee nguur gi ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu woowu dinañ ci gën a taxaw seetlu ndax defe naa ñoom ñu ngi def ay euh, jaloore sax mais nit munoo ko qualifier ba pare munoo ko yemale <clears throat> te am na yoo xamante nit bu koy def doo ko yëg nit dafa sew. yàlla baax na yàlla baax na. Aïcha mi ngi noonu elle s'appelle Latifa wax na lu am solo nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mbokk téléspectateur yi kan ngay gërëm kan ngay sant Latifa. maa ngi gërëm di sant samay waa samay ñaari waajur kooku di sama yaay Anna Borofix maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal wergu yaram ak gudd fan di sant sama pap Joseph foofu ca Palmarin maa ngi koy sant di ko gërëm franchement aw ma fayam di ko ñaanal. weer gu yaram ak gudd fan mu toog ba fekkee njëriñu doomam. di sant samay tante samay mag samay rakk franchement maa ngi bu ma limee rek damay juum. maa ngi sant sama tante kooku nga xam ne aw ma fayam. Clotilde Ndène di sant sama sama pap bu ndaw Pierre Ndène aw ma fayam franchement ak sama tata Sophie Marie sama grand-mère Marie Doussou. franchement ma seen fay ak sama mag bu baax bijou aw ma fayam di def coucou sama doom Zeyna sama sama nièce euh, Marie ak sama doom bu baax euh, Jean Bénédicte franchement je suis très content maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa Mèche Darling di gërëm Binta mi ma génnee fii ak maman top mi ma defal make bu rafet bi bu baax bi ak teg euh, ak teg bi di sant waa 2STV bébé Chou mi ma dalal franchement maa ngi koy sant di ko gërëm. Aïcha man itam maa ngi lay gërëm bu baax di la remercier bu baax a baax ba tax na aussi dama lay jox kàddu bi nga xamante ne moom la la daal di jox balaa ma koy fàtte parce que.